dal leen nag jàmm ci seen chaîne YouTube Sen yi ñu ñëwaat ak yéen ci beneen histoire boo xamante ne mbir bu nekk boo ko dégloo rek sa yaram ca daw lool. amoon ay atam amoon na góor yàlla bu ñuy woowee Maawuya Maawuya nit ku baax la nit ku yàlla may la waaye Maawuya nekkoon ku teeyoon lool moom Maawuya bu fekkee xuloo wala nit ñu jote dina fexe ba jubóole leen waaye alalam mu daan ko bokk ak du bépp doomu aadama Mario danaa wut sa dépense bu wutee dépense mu dajeek nit nit kooku diis kook ay ay mbébétam Mario jël alal jox ko ko daal dem toog jàpp ñàmburam jàpp ci yàlla daraam xiif sax di takk biiram di julli waaye bugul kenn xam dara ay mbiram ci li nga xamante ne mooy ay tolof tolof yu muy dund da daan dox ci yittey doomu aadama yi di fàtte ay yitteem moom moom Maawiya nekkoon ku baax nekkoon julli xakam daan woon faat waxtu daan julli waaye daan bàyyi xel lool lool doomu aadama yi mais nag Maawiya nag nekkoon nit boo xamante ni tamit ku bëggoon di dem tukki la maanaam dafa bëri ku bëgg tukki la dafay génn di sàkku ci xam-xam benn bés nag Maawiya génn na ngir dem sàkku ji xam-xam Maawiya génn na fi nga xamante ne mooy Irak di dem sàkku ji xam-xam ya di dox di dox di dox ba dugg ci benn dëkk ba mu duggee ci dëkk ba nag dëkk bi nag mu fekk leen ñoom dañoo loof loolu li leen loofloo nag ku ne xam nga ko maanaam benn teen a nekk ci dëkk bi te teen googu dafa am lu nekk ci biir teen bi saay bu ñu sàndee baag pour root pour baag ba da lu nekk biir teen da koy dagg bu ko daggee buum rek mooy ñëw waaye baag ba du ñëw waa dëkk bi ñëw nag ba loof ba ndox xaw leen na jafe lool te benn teen boobu kese moo fa nekk amuñu beneen pexe yàlla àndil leen maawiya boobu mu jàll foofu ba fa jaaree mu toog fa bëgg bëgg a dallu mu ñaan ndox ngir yeesal njàppam ñu ne ko ñun dey fii ndox dey doom bu góor la fi ñun dey mot na lu toll ni ñaari semaine dañuy tiim julli bu ñu bëggee julli dañuy tiim maaw yeneen lu waral loolu ñu ne parce que dafa am teen bi benn teen doo nga fi ne te teen boobu yi tamit dafa am rab bu nekk ci biir teen bi rab jooju saay boo dugalee baag day dagg baag bi buum kese moy ñëw ñun ñoo ngi nii marum nan mu ngi bëgg ray ñu ngi bëgg dé amna suñu suñu doom yépp loof nañu ah maaw ya ci ngorom ci ngorom mu taxaw mu né lool dé dina jeex ndax ma dina dugg ci biir teen bi gëné rab bobu mbaama ma ko ndax ngeen am ndox même bu dé sama bakkan dina ci rot dina ko def waaye ma maaw yéen na leen ah, benn condition kese kese laal di ñaan ngeen defal ma ko balaa may dugg ci teen bi ñu ne ko lan nga bëgg boo loo wax ñu li nga bëgg rek bu dee mën nañ ko nañ ko def mu ne damaa bëgg ngeen demal ma fi nga xam mooy Irak boo leen fa àggee ngeen laajte Assane Assane sama doomu mbokk la maanaam sama mag bu góor moo ko jur léegi su ko defee moom Assane mu ñëw assisté maanaam mu ñëw bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàpp buum bi may takk pour mun a dugal ci biir teen bi boolu daal loolu daal boo defee rek man dinaa dinaa dugg ci teen bi ñu ne amul problème ñu di dem dugg Irak seet Assane boobu ba gis ko expliqué li nga xam ne moom mooy wax euh, histoire bi la dafa joxe jaar boobu ñëw ànd ak ba mu àndee ak ñoom ñëw ki nga xam ne mooy maaw ya mu ne leen bu tàkkusaan jotee buñ ko jullee ba pare rek après ñoom ñu dem ci teen ba ñu julli tàkkusaan daal dem ci teen ba mu ne takk leen ma buum boo ma takkee buum ngeen yóotal ma ma dugg ci biir teen bi comme ça su ma su ma rab jooj ba pare après ngeen daal di may xëcc ma daal di génn léegi nag ñu takk buum mu daal di dugg ci biir ba mu duggee ci biir ndekete dafa am benn golo bu tëmb ci biir teen bi golo googu saa yi bu sàndee bag dafay bëgg a jàppandu ci bag boobu mu dagg bag bi parce que moom tam dafa bëgg a génn maaw ja duggee gis golo bi dafa jàpp golo bi mu ñeewantal ko parce que gis na ne du rab du dara golo la rek mu daal di koy boot takku ko ci ginnaawam jàppandu ci buum bi mu ne acca xëcc leen naka la ñuy xëccee di xëcci di xëcci di xëcci ba maawe bëgg a génn ñoom ñu seen bopp golo bi rek ñoom ñépp daal di daw bàyyi buum bi kii di asan nag di mbokkam moo téye ca buum bi ba mu dëgër këcc bañ koo ba muy xëcc loxo bi di nàcc mu jàpp ca loxo bi yépp dagg ndeysaan mu forcé forcé ba mbokkam jooju nga xamante ne bu bàyyam la mu daal di génn ba mu génnee waa dëkk ba encore ne waxeet dawaat ñëw fekk ko ñu ne ko ndekki kon yow li nga boot gol la ñu ne yaakaar ne kat rab bi mooy génn noonu yow da dee ci biir mu ne leen waaw man kay xamoon naa ne bu dee tolof tolof la woon moo amoon ci biir da ngeen may bàyyi ci biir waaye sama mbokk bii moom moo tax tey jii ma sobewu soo leen gisee ma ne leen ngeen dem wool ma sama mbokk bi ndax xam naa ne sama deret la te deret munta bañ deretam ndax boo leen dawee moom dina téye bumbi mbam ngir ma génn donc nag noo la demee nga xamante ne maaw ya ba mu génnee waa dëkk ba daal di commencé waat di naan normal seeni seeni seeni jur yi di naan seen gàncax yi daal di naat fatabarakallah mu am ci tiyaaba bu dul fay ba abadan ilaa yow mi din daay mën a bana fat abadan fatabarakallah donc nag ngeen gis ne loolu luñ ciy jàngal mooy que fonk leen seeni mbokk wallaahi ku bàyyi àndam jàpp ci dem ci àndu jàmbur di fa fekk boromam boo fa te doomu aadama boo boo bañee sa mbokk daa fekk nga gën caa nga gën caa ñaaw donc fonk leen seeni mbokk fonk leen seeni deret fonk leen seeni seeni bopp ndax nit ki munoo fonk sa bopp tan fonko sa mbokk ni nañ nañu bàyyi liggéeyante bi nañu bàyyi serignante bi nañu di defante lu ñaaw nañu bàyyi jëwante ta ku nekk na nga xamne wallahi bo bàyyi sa mbokk dem ci mbokku jambour di nga fek koku japp na mbokam bu baaxa baaxa ba kon donc loolu lañ ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, this and that Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious